magal Touba 2020 mu fekk ci ben contexte. ay bis ci ginnaw wala ay wer ci ginnaw taxaw nga ni ñoo ngi ñaan corona bi yalla bu fi fekk magal yeug yeug la ak ban anam ak ban gis-gis la ci am. man sax lolu ma ngi ci jéglu yalla suñu borom. ndax da fay melni dama man dara wala ma xam dara. astaghfirullah. ñu ma wax dal sama gemmi gi moomutu ko moomatu mu ko ñu ngi koy yëngal di ci wax loolu nga dégg ne gi du fi fekk du fi fekk dara ci corona démb vingt lañu wax bërkaa bërki démb vingt lañu wax amaana bala ñoo dem semaine ñu ne dix bu rek <laughs> ah la te amaana keroog ba ñuy toogee ne tey la tey la màggal amaana kenn du takk masque man de ji ngeen ko masque bi moo ko bàyyi mosuma jëflanteeg moom xaritoowuñu